ci nekk hmm. nekk sa journée vrai man ba ngay dem yëguma la du tax yeewoo ma rafetlu nga ndékki lekk nga ba pare mu yow loolu démb la woon de tane naa bu baax bari nga yéen ma ne foog ne cinq la am am euh, ci kanam dina génn vite fait dem marché am lu ma jënd Mm, duma bien sûr balaa ngay wàcc dinaa ñëw la gën nam mm-hmm. <laughs> d'accord moi aussi je t'aime bisous Ah <laughs> ok Allô, chef. Ouais, ça va. Cornec. nga ne yaa ngi séminaire yow nga ne yow yaa ngi séminaire yow ak séminaire tey lu xew ba nga ñëw fii ak ay jooy ci kër gi bëgguma lii de Marie dimbali ma wax ma lu xew astu tey laa gëm ne góor man tey tey laa bàyyi góor six ay neuf koo ci juutoon mu jox la mborom yow umpalew la li may sonnee ci sama sëy Cheikh lu ko neex laay xool soo ba ngoon ci laay dox te loolu ma tax di sonn Cheikh bëgguma lu ko naqari Cheikh xiiful Cheikh raflewul Cheikh dara Cheikh dara manqué ko. ay waay ku la bàyyi nga wax loolu Cheikh ku baax la de Cheikh de baax laa ko xamal wax dëgg. gis nga pour lui faire plaisir moo tax ma teel a xëy dem centre commercial bi dama koy utal cadeau dugg def sama achat ba génn gis otoom ma woo Cheikh te xam ne foofu du jumukaayam pour xool fu mu nekk xool lu may wax mu ne mi ngi séminaire ma wax jëm kaw jëm suuf mu ne ma réunion la am teg ci di ci insister te man ma jàkkaarloo otoom Cheikh ne ma mi ngi réunion Cheikh lan lay def Pikine dafa am fréquentation amu fa xarit biroom nekku fa daraam nekku fa am fa mbokk Cheikh lu mu fay def. yow Maria ñàkk fayda dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg non bul ma yekkali yow Maria ñàkk fayda yow nga ñëw sama kër teg sa saak rek toog di jooy man tiit naa foog ne lu nekk la lu nekk moo xew mari amoo dara loo may wax lu dul yow fiiraange ngay wax ci sëy dinaa fiir kay bu ma demee pour jox sama jëkkër da ngaa wax ba pare même ma yekkali mari foogoon sa yaay moo am moo feebar wala seen kër dañoo am problème wala dara man yóbbu nga sama xel bi sama tension bi yéegati na yaa ma bett dëgg dëgg dëgg yaa ma bett mari sa maam daan wax naan nit nit danga war a teey te boo nee tekk tekk wan la yoon yaa ngi may dégg dama bëgg nga dal na nga teey ànd ak sa xel bàyyi sa waxu xale yi ngay wax te xam ne magum jëmm nga léegi yaa ngi ci sëy mari jigéen bu nekkee ci sëy da nga war a téy man daal li ma lay digal mooy na nga téy xaaral sax ma dem xool sama cin bi légui nak, xam nga luma bëgg nga def ko dama bëgg nag nga jul gàddu say bagage sa dem heure bi nak Cheikh warna wacc te boo na nga dal na nga té bu fa indi ben ben histoire bëgguma Cheikh ñëw du la fekk kër ga yaa may dégg de yow fan nga nekkoon. maa ngi tiit jaaxle fu nekk ma woote. ñëw ci kër gi fekkuma la même sa yaay woo naa ko mën a ma nekkoo ci kër gi. kër Astu laa nekkoon. ba pare sama téléphone dafa déchargé. mais attends kër Astou nga nekkoon sa téléphone déchargé nga jël téléphone astu Astou oom. lii bu mu la dara di d'accord. maa ngi bi sama bopp kontaan torop surprise ku la ko décoré sambo yee sama jëkkër ji nekk dafa jege de xam nga yow dañoo sëy ay at musoo hmm, maa def lu ma métti musoo maa def lu ma naqari donc euh, bésu Saint-Valentin bi kenn du dem ñu des <laughs> ndax man dama laa bëgg sans yow du ma lekk sans yow du ma nekk xaru sax mën na ma ci fekk. déedéet doo xaru déedéet du ma xanaa. <laughs> Eh, bi may woo téléphone nag boobu maa ngi woon ci centre commercial Moul Fall. voilà eh, ne moom xaar mu wutal la benn canne pour defal la Saint-Valentin àdduna daal nekk te tey baax na ci. baax na loolu. dama ko xam rek. man tamit am naa surprise pour yow. merci beaucoup. c'est joli ça. xaaral dafa tudd loo xamante ne soo ko wax. neex na ma trop kontaan naa si yow. amour bu particulier nga am foofu daal. <laughs> léegi nag xam nan la def. Mm. da dugg ci biir nga sang nga sol yére bi resto la ñuy reere. Mm. Hmm? te surprise yi jeexul bu ñëwee des na. gis maa la ko wax. <laughs>

di la gërëm bésu tey bi nekk bés na boo xamante ni dama ci firndeel euh, wanaat sama mbëkk maa ngi lay sant bu baax a baax gis naa lépp li ngay daj ci man maa ngi lay sant di la gërëm je ndax noppal nga ma guddi noppal nga ma guddi noppal nga ma ci côté bu ne sonaloo ma benn yoon loolu lépp gis naa ko ba tax na awma sa fay liñ naan euh, mbëggeel du jaay amul prix bañ koy waxaale su amoon piri wala ñu koy jaay dinaa xam fan lañ koy jaay ma jënd lépp ngir yow. Cheikh man maa war a sant yàlla jour ngoon ma ni ma bëggee comprendre nga ma te yaa ngi may muñal di ma taxawu. yaa tax ñëw ma sama benn morom lenn rek lay ñaan yàlla mooy seytaane bañ a xaj suñu diggante ma lay gën a mën a ya, muñal yàlla gën maa may xol muñ ba kenn du xaj suñu diggante en <laughs> tout cas man it loolu lay ñaan yàlla su ma la bëggoon 10 saa yu ma xëyee day nekk 20 30 40 di jëm ci kaw man ak yow moom kat pelle quoi loolu dafa leer. voilà mais lu ma jaaxal bi nga jógee kër asu sa kanam gi belliwul quoi dafa mel da ngaa meroon. xanaa xamoo cadeau bi ma jox commercial Modou Fall ko gis nga ba ma ci gis sa oto moo taxoon ma woo pour man nga fa gis nga astu moo la may chance bu dul woon moom tey boo ñëween kër ga tey coow gi fa naroon fekk doo ko sax àttal. <laughs> non tout sauf ça dinaa def lépp bu mu des jigéen lan lay dox di wër jigéen ku am ku mel ni comme yow lan lay utiti keneen bi ma fa duggee rek yow yaa taxoon ma dugg fa ndax bëggoon laa defal surprise te bëgguma woon wax fan laa nekk nga koy xam. <laughs> sama aaw di sama ñaareel di sama ñetteel di sama ñetteel yaa ko yaay sama lépp yaa ko c'est sûr <laughs>